asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki réew mi eh, maa ngi leen di nuyu eh, ñu nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew yépp maa leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ak tawfiq di ñaan yàlla daf ko daf jàmm ci Sénégal daf ko ci réew wër Sénégal yépp eh, yéen a ngi ànd ak ci waxtaan bi seen soppe seen xarit Seydina Cissé maa dellu si ak yéen tey ci benn waxtaan bu gàtt rek boo xam ne message la boo xam ne maa ngi ko jëmale ci ndawi réew mi nga xam réew mi ndax euh, buñ ne réew rek euh, yaakaar bépp ci ndaw yi la nekk waaye ban ndaw ndaw bu am euh, saqaafa am culture waaye ndaw bu bu bu bu yeewu ndaw bu xam lim bëgg ndaw bu dégg nga am gis-gis bu sori ndaw boobu moo tax ñu ndaw boobu la ñuy wax ne moo yaakaaru réew ma bëgg a ne réew mi fii mu toll kenn ku ne da ci am responsabilité lépp loo gis ne boo ko waxee mën naa defar réew mi mën naa indi changement ci dëkk bi mën naa jëriñ Sénégal rek. amoo droit pour noppi donc dama bokk ci ñi nga xam ne mbubum diina laa sol waaye gawma rek ne diine mooy tëdd ci jàkk nekk ci jàkk ji allah akbar salaamaaleykum wala ne ca darsu ba di jàngale na réew mi sama yoon nekku ci man bokk ci ñi gëm loolu ndax yenentu bi mooy roykaay bu mag bi te yenentu bi melutoon noonu yenentu bi moo doon jiite jàkk ji moo doon jiite euh, dégg nga jàngu beeg lépp waaye bu xare jotee mooy ne ca kanam mooy ne ca assemblée ba lépp moo ko doon jiite kooku mooy suñu roykaay Euh, ma bëgg leen wax yéen ndaw yi Sénégal dafa am juróomi kuréel yu fi yoo xam ne bokk nañ ci ñi tax réew mi tardé bokk nañ ci buñ soppeeku réew mi soppeeku buñ soppeekuwul euh, réew mi pour mu soppeeku dana jafe ñooñu nag laa bëgg pour xa pour pour pour ngeen xam leen yéen yéen ndaw yi euh, bàyyi leen xel di xam di déglu ñi nga xam ne ñooy wax ngir Sénégal ak ñi nga xam ne ñooy wax ngir seen intérêt personnel dee leen déglu ñi nga xam ne dañuy wax ngir intérêt général ak ñi nga xam ne dañuy wax ngir intérêt personnel. Sénégal dafa am juróomi kuréel yu fi ne bi ci jiitu mooy ñi ñu tuddee les communications tradu traditionnelles les communications traditionnelles bi ci topp mooy ñu tuddee les lutteurs ay ñi tuddee ay mbëri làmb bi ci topp mooy <clears throat> ñi ñu tuddee ay artistes bi ci topp mooy ñi nga xam ne euh, dañuy mbubboo opposition te duñu opposant dégg nga pouvoir la ñu àndal di nax askan wi ñoo ñu bokk nañ ci ñi nga xam ne il faut ngeen démasquer leen xam leen. Euh, su noo su dul loolu réew mi du mën a sensé bi ci des mooy imaam yi nga xam ne waxuñu ngir yàlla waaye seen poos moo tax ñuy wax ñooñu ci laa bëgg ñëw tey euh, bi ci jiitu mooy ñi tuddee communication traditionnelle du ñëpp nag am na ci suñu waajur yu baax suñu baay yu baax yoo xam ne yàgg nañoo am taxawaay yu rafet ci réew wax dëgg yàlla yàgg nañoo fay lakk ci réew mi yàgg nañoo wax kenn mosu leen dégg lu wax ju baax waaye daf ci am ñoo xam ne du ñu wax ngir mukk mu ngir askan wi muy communication traditionnelle daf ci am ñoo xam ne waxuñu ngir intérêt général foo leen fekk nguur la ñuy àndal duñ wax dëgg nguur bu nguur gi defee nu baax ñi tàcc ko bu defee safaan ñi falsifié ko jëm ko rafetal sax wa ilaa ñi noppi ci peuple bi du jaaxle mukk bañ taxaw ci peggu peuple bi injustice du métti mukk Sénégal bañ taxaw ne li injustice la jaaduwul du ngeen gis ci wetu peuple bi du ñu xeexal peuple bi du ñu waxal population bi état la ñu àndal ngir lu ñu def seen poche duñu wax Sénégal yi li nga xam ne mooy vérité bu réew mi naqaree sax ñi ne neex bu réew mi tàngee sax ñu ne dafa sedd bu seddee ñu ne dafa tàng ñu laay wax ne na ngeen leen moytu bokk nañ ci ñi tardel Sénégal ndax ay porte-voix lañ ay influenceurs lañ nit ñi di leen déglu te du ñu wax ngir réew mi mais dañuy wax ngir lu yóbbu ngir lu yóbbu seen kër sañ nañoo jàkkaarloog opposition dal seen kaw wax leen dëgg waaye amuñ droit wax dëgg ñi nga xam ne ñoo yor ñoo yor xaalis bi yor milliard yor millions yi ak yi ñii yéen ndaw yi il faut ngeen xàmme leen bañ leen di leen déglu. bu fekkee sens wuñ seen discours bu leen leen déglu ndax lu ñu leen wax lu leen jëriñ waaye lu lu jëriñ seen poos moo tax ñuy wax euh, bi ci des mooy euh, kuréel bi ci topp mooy ñi ñu tuddee ay lutteurs ay mbëri làmb du ñëpp tamit am na ci mbëri yoo xam ne conscience nañ ay patriote lañ ku mel ni Siteu bu Lansar ma seetee ko ci di ko ñaanal yàlla taxawu ko lépp lu mbëgg ci làmb ji moom Siteu yàlla na ko am. yàlla na yàlla na am raay yi mu bëgg yépp ci wàllu wàllu làmb lépp lu mu ci bëgg tamit ci wàllu koom-koom yàlla na ko am euh, Siteu euh, ku baax la ku bëgg réewam la ndax dama gis mu def ñaari vidéo yoo xam ne daf ma frappé lool ne euh, président ma Sall la ndaw yi nga xam ne ñoo topp sama gannaaw bu may bëree ji ñooy daw ñooy feesal stade bi ñoo ma indi ci succès bi ma am ñoo ma ko may ñooy sol samay tiset ñooy xeex pour man ñooy xuloo pour man ndaw yooyu ñi ngi dem ci mbëkk mi ñi ngi dem ci gaal yow président jàppale leen fexeel ndaw yooyu am liggéey waaw ah, man de amoon naa yéen ñoom ñëpp jàppale leen ba suma ma dépense woo ñu dépense mais sama loxo jotu sama gannaaw mais kii exemplaire la ci ay ci mbër yi la te am na ñu ko mag ci biir làmb ji ëpp ko ci xaalis te defuñu ko kon il faut ngeen yeewu yéen jeunesse bi xam ñi leen ñi ñi leen fi nekkal ak ñi nga xam ne seen bopp lañ fi nekkal nekkaluñ leen fi waaw nit boo àndee moom di ko soutenir fi mu egg yëpp yow yaa ko fa yóbbu te yow soo nekkee ci problème wala nga jaaxle mu war laa soutenir day toog di ndax danaan su ma waxee état dafa may mere eh, weccat bañ ma doon mosal dootu ma ko mosal kon il faut ngeen xam ne ñooñu bokk nañ ci ñi tardeel askan wi ndax ay ay influenceurs lañ ay porte de voix lañ ñooy ne ci kanam population bi di wax ndaw yu bëri bëgg leen topp seen seen gannaaw te du ñu waxal population bi mais seen intérêt foo leen dégg ñuy wax maa ngi gërëm ministre sàngam maa ngi gërëm député sàngam nangam directeur sàngam ndax moo ma jëndal ay tiset moo ma may nangam moo may nangam loolu intérêt personnel la du intérêt général te bu askan wi soxlaa doo taxaw nga waxal leen bu injustice amee ci dëkk bi doo ci wax dégg o au contraire nervi yi ngeen di dégg sax ñu ci bëri ñoo ci ñoom lañu wax lan lañ bokk ñi topp askan wi di dóor kon groupe kuréel kuréel boobu moom itam bokk na ci ñi tardé réew mi yenn ndaw yi na ngeen ci bàyyi xel te yeewu ci te bañ leen di déglu parce que ñu ci bëri seen intérêt personnel la tax ñuy wax moo leen tax a jóg waaye du intérêt population bi. waaw ñu ci bëri dañuy nelawal population bi duñ leen wax lu am beneen bi ci des euh, mooy euh, dégg nga beneen kuréel bi ci topp mooy ñu tuddee ay artistes surtout les musiciens nga xam ne ñoo ne ci kaw euh, dégg nga seen i yéen population bi musiciens yi fi nekk Sénégal artistes yi fi nekk yëpp yéen leen def star yéen a leen def ay millionnaires ak ay milliardaires liñ am yëpp yéen leen ko may yéen peuple bi yéenay dem ci seen i concert yéenay dem CICES feesal ko. yeneen dem grand théâtre feesal ko waaw est-ce que yéen bu ngeen soxlaa yéen population bi ñooñu danañ ñu taxaw di leen waxal déedéet parce que jàpp nañ ne bu ñu waxee dëgg nguur mere leen kon ñun ci seen intérêt personnel lañ ne jël leen seen matuwaay ngeen yeewu réew mi mënta changé te ndaw yeewuñ xam li ñu bëgg musiciens yi nga xam ne tey mën nañu bind ay woy sax même buñ mënul dem ci manifestation mënuñ xeex injustice mënuñu ko dénoncer mais ñu dénoncer ko seen seen biir biir seen i morceau seen seen i wëy ana artiste bi fi nekkoon démb naan maa dem ba soog courant bi coupé na ana ki artiste bi fi nekkoon démb naan alalu mbooloo ndénkaana la bul ko fawee waaw kooku xanaa nekkatu ci réew mi wala lan daan xeex ba léegi nekkatu fi kon xam ngeen ne kon xeex bi duutoon ngir Sénégal mais ngir intérêt personnel la woon kon yéen Sénégal yéen Sénégalais yi. Euh, zone Sénégal bi na ngeen yeewu ngeen xam ñi nga xam ne ñoo leen fi taxawal ak ñi nga xam ne seen bopp lañ fi nekkal te lu ñu doon yéen a leen ko def yéenay xuloo pour ñoom yéenay xile xuloo ngir ñoom yeneen xeex ngir ñoom dégg nga yéenay dem ci seeni concert di ko feesal yéen leen may succès bi ñu am te du ngeen jaaxle mukk bañ taxaw wax waxal leen déggu leen ci kenn ku taxaw fi naan ah, euh, ndaw yi nañ leen jox liggéey wala mbëkk mii ñi dem jaaduwut nañ taxaw ndaw Sénégal yi nañ leen jox liggéey nañ leen taxaw ñu néew ci ñoom ngay dégg ah ñu ko wax ñu ci ëpp ñoom ñu ci ëpp alal ñi nga xam ne tey yéen leen jox liñ am yépp du ngeen dégg ñu waxal leen kon artistes yooyu bokk nañ ci ñi réew mi ndax ay influenceurs lañ dañuy ne ci kanam euh, population bi ñooy ne ci télévision yi di wax ay ndaw bëgg leen te duñ duñ wax Sénégalais yi discours boo xam ne mooy vérité mais lu ëpp ci seen i wax seen intérêt personnel ci la jëm ak intérêt yi nga xam ne ñoo leen di jox weccat kon ñooñu nangeen ngeen leen xàmmee yéen sones bi xam ne nekkuñu fi pour yéen waaye seen bopp leen fi tax nekk. Euh, bi ci des kuréel bi ci topp mooy ñi nga xam ne euh, dañuy tuddee seen bopp ay opposant safuñu yàpp safuñu gejj ay naafeq lañu dégg nga ay opposant lañu bokkuñ dañuy wax ne bokkuñoo ñi jiite réew mi gis-gis te yor seen communication ñooy layal nguur gi ñooy waxal nguur gi dégg nga te na ay opposant lañ te opposant bu taxaw pour Sénégal ñet ñoom ñooy jiitu ci xeex la ñooñu ay naafeq lañ te ñi may wax xam ngeen leen na ngeen leen moytu ñooñu ñoo xees ci réew mi ñi ne ci kaw sax di seddoo milliards ñoo leen gën waaw ndax ñoom safuñu géej safuñu yàpp naafeq mooy ku du julli du yéeféer loolu mooy naafeq naafeq moo gën a bon yéeféer parce que yéeféer sax mu wax ne ne gawma yàlla leer na ci leer na ñépp ne gëmul yàlla nga xam foo koy classé mais ki nga xam ne tey mbubboom lislaam lay sol te gëmul yàlla koo ko gën a dansé ñooñu it na ngeen leen bàyyi xel xam ngeen ñi may wax bu leen leen déglu ay kat lañ seen intérêt personnel la ñuy défendre waxuñu ngir intérêt réew mi euh, ñi ci des ñi may tëjee mooy ñi nga xam ne ay imaam la ñuy wooye seen bopp imaam yi nga xam ne ñoom la maam Dabaax doon wax ci jamono bu ngeen dégloo kasetu euh, sëñ Abdou Aziz Dabaax mu ngi wax ne bu ñu kenn soppil aaya bu ñu kenn soppil xadis ngir bëgg set ragal set set ñu lay buñ la jox imaam yooyu laay wax ñi nga xam ne dañuy indi ay aaya ngir dooleel nguur di soppi ay xadis ngir dooleel nguur ngir saako ceeb yi ñu leen jox ngir diwlin yi ñu leen di jox ngir xaram tabaski yi ñu leen di jox imaam yooyu di xëccoo jiit imaam yooyu laay wax ne mooy imaamu soos soosaati na ngeen leen xàmmee te bu leen leen déglu nekkuluñ fi yàlla nekkuluñ fi population bi seen intérêt personnel lañ fi nekkal imaam mi wax xam ngeen boobu waxuma nag imaam yi jub yi am na imaam yi jub yu fi ne waaw ñu mel ni imaam Dramé macha allah waaw ñu mel ni imaam Dramé exemple la ndaw ndaw la mais euh, exemple la am na xam-xam mu ngi xeexal diina ji waaye mu ngi xeexal réewam façon imaam yooyu waxuma leen ñi may wax xam ngeen leen mooy imaamu soo sosaati imaamu système bi imaam yi nga xam ne. bët bu seen ñi attaqué oppos opposition bi te ñi ñi ne ci nguur gee ngi def lu leen neex te duñ leen wax dëgg imaam yooyu laay wax yéen sones bi na ngeen xàmme imaam yooyu bu leen leen déglu aaye buñ tari bu leen ko déglu waxuñu ko ngir yàlla xaddis buñ indi bu leen ko déglu waxuñu ko ngir yàlla ñu ba bokk nañ ci ñu yàq Sénégal parce que ñoom ñoo gën a garaaw sax ndax ñoom yàlla lañ mbub mbubb diina la ñuy mbubb woo dañoo xees ñépp waxuma imaam vare yi i foo yi laa wax imaam yi nga xam ne dégg nga du ñu wax mukk ngir yàlla te du ñu wax ngir réew mi seen intérêt personnel ak luñ def seen boos moo tax ñuy wax dañuy gis dëgg xam ne lii dëgg la te duñ ci dut baaxam imaam yooyu laay wax na ngeen leen xam ñi bokk nañ ci ñi nga xam ne ñu yàq parce que Sénégal dafa toll foo xam ne il faut ku nekk jël sa responsabilité seet ñi li nga xam ne mooy yàq ñi dénoncé ko xam ne lii day yàq yee ci nit ñi nit ñi xam ko seet ñi nga xam ne ñoo jox pour réew mi ñoo jox pour diine ji ñi xam leen wane leen ba xam ne ñii lañu Sénégal foofu la toll donc maa ngi ñaan yàlla euh, def jàmm ci réew mi message bi nga xam ne maa ngi koy tëjee nag euh, actualité la mooy artiste bi nga xam ne mooy Wally Seck maa ngi koy jox conseil conseil laa koy jox de ngir lan euh, bëgg ko xam ne Sénégal la bu yàggul rek la woy juróom génn àddina vraiment bu ma sañoon du dugg ci yenn erreur yi am na yuñ koy jiiñ te xëy na jiiñu ñu ko bàyyi bi nga xam ne ñoo ko fi jiitu woon sorte bi nga xam ne def na ko dafa def erreur de communication waali su ma doon conseil ni nga waxee doo ko waxee xam nga la ma waroon def génn jéggalu senegal yi dégg nga ñi nga xam ne xëy na si am nañ lu leen seen xol tàng na ci xëy na li ñuy dégg ci yow moo xam ñi ñi ñaanut ak yow ak ñaan ak yow nga weddi na man li liñ may jiñ duuma ko te kenn du ma si mas a gis waaw nekkuma ko te kenn du ma ci mas a gis te damaa bokk sax ci ñi koy xeex yaa ngi dégg ustaas yi ak imaam yi fi ne nga sàkku ci ñoom ñaan pas nga leen di porte plainte loolu euh, wali erreur la oustaz yii nii ak imaam yi ñooñu ñaan nga war a sàkku ñoom mais waroon leen yóbbu ci yoon tey cow li demoon na bay fay mais tàkkaat na te yow yaa ko taal te du sa avantage du sa avantage xaw ma ku la jox conseil bi mais joxul la conseil yu baax déedéet lii xaw ma ku la ko xelal wali mais conseil yi mu la jox baaxul bul porte plainte ay imam retirel plainte bi bu fekkee man dégg nga conseil yi ma la jox retirel plainte yi coow li day gën a bëri te doo jàmm coow li day gën a bëri ci sa côté te doo ci am ndam te dafay négatif ndax dañ naan waali kat ma ngay porte plainte ay imam ay oustaz même say bañ sax danañ fa jaaree gën laa jabolise kon erreur dëgg nga def waroo woon porte plainte waaw wala soo demee booy plainte bul plainte ak imam ak ay oustaz dafay yàq sa image te histoire daf koy bind Youssou Ndour mi la fi jiitu def na fi lu ne lu ne ci réew mi mais kenn musul bi gis ci histoire ñu ne Youssou Ndour yóbbu na ay imaam ak ay ay oustaz tribunal kon yow bul nangu ñu lay bindal loolu ëllëg tey ngeen war a taxaw tribunal xam nga ne na sàmm jukki yi nga jàkkaarloo di xeex ak ñoom mënoo am ndam seen kaw ay imaama fa nekk ay oustaz ay ay ay jàngalekati alxuraan léegi ñëm ñëpp ñi dem taxaw yow tribunal na dañuy lay ak ci li nga xam ne moom lañ lay tuumaal est-ce que loolu rafet na ci sa image waa yi déedéet rafetul ci sa image te xale nga da nga am avenir da nga am carrière da nga am foo bëgg a dem am na lu bari lu la dese ci li nga xam ne moom ngay yëngu kon conseil yi ma lay jox mooy penalty yi nga def ay oustaz xaw ma ku la ko xelal du conseil bu baax retiré ko nga continuer sa liggéey te lii fi ñu lay fi ñu lay fi ñu lay fi lay séentu di la fa dëkkal nga bañ ko la fa gis wala bu fekkee ne am na dara loo ci laaloon nga génn ci lii man mooy conseil yi nga xam ne moom laa lay jox waaye pelantal ay imaam ak ay oustaz du conseil bu baax ku la ko digal digalul lu baax te doo ci am ndam yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci nga xam ne ñëwal Sénégal yàlla na yàlla génn Sénégal jafe-jafe mu ne xoli tilim yi ak yi feebar yi xoli tàng yi yal na ko yàlla seddal yal na yàlla raxas xoli tilim yi fi ne yal na yàlla jubale sénégalais yi ñi nga xam ne dañoo jox pour taal di fa wax ay waxu terroriste rek dégg nga ay bomb ak bomb yàlla na ci seen kaw yàlla na këpp ci seen kaw yàlla nañ tàkk ba ñax tàkk bàyyi fi Sénégal ñii pexe pour taal réew mi ngir seen intérêt personnel pas intérêt Sénégal yal na yàlla taal leen ba dootuñ tal Sénégal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu